mooy kan e local la ñun ñoo ko di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ni non làmb fu muy jage yow làmb joo xamante ne bii pour nga gis ci sponsor bu baax il faut nga gis ci événement waaw sponsor bu man a génne deux millions wala trois millions joxe il faut nga gis événement bu mag mm-hmm. léegi loolu lan moo ko waral milieu buñ ko assainirul kenn du ko xemmeem ba jël ko man cee dugg. Kandji yow sportif nga. xanaa bëre. mais man bëre. ci bëre noon ndax. non football laa gën a miin sax que làmb. non ba xam sportif nga maanaam boo ñaaw bu daanee bu daanoo. laa ilaha illallah wala wala wala wala sa benn xarit wala koo faraloon wala koo faralul yëpp di nga jàpp sport la rek. Balla Gaye bi ko boo ñaaw daanee du gis nga ma jooy. waaw boo ñaaw bi ko mudloo daanee lan moo la jooyloo bi mu daane xam nga ndeysaan may sa buri dëggeen koddu la ko la ko wàcc gille dafa ànd ak sàmbalaw bi ñu war a fekk alburi jolof keroog ba sàmbalaw bi toggee téeméeri bagaan may sa buri dëggeen koddu dem njobb kër lingeer sàmbalaw bi dane bu kenn reer te may sa buri dëggeen koddu ñëw kaw koo tax kajoor ak bool fande keroog bi mu ñibbisee ca suba ga sàmbalaw bi ne ko foo nekkoon mu ne ko maa ngi woon njobb kër lingeer mu royal ma ñetti xaboon mu ne ko fii téeméeri bagaan laa fi dëdale ma nga ne la ma tuur ca tani maakay may si tendee dama ne bu dafa dugg këram mhm. ñetti jabar la yoroon jabar ju ne joor nga tudd sant jeng mu ne leen may sa buri déggeen kodd mu ne leen sàmbaloo bi dafa maa sedd añab goro su ma demee gile lu ma ko war a fayee mhm. ñu dugg gise génn ne ko boo demee gile ñëwaat di ko nettali matatoo ñu jëkkër mu ne leen dugg leen firé ko bu ma demee gile du ma ñëwaat garmee ko baax ngor ak geste damay wax ne asgor jëf asgor xaalis du ko regg mhm. geste moo koy jour geste booboo tax keroog ba sàmbalaw bi dóoree fasu alburi boobu fe keroog ba alburi dooree fasu sàmbalaw bi boo ñuy wax tojum réew jigul doxandéem mhm. may sa buri dëggan ko dugg ci xare bi ba jëloo fas jox ko ko mu yéeg mu dem moom mu des gile ngor googoo ma jooyloo ci diggante Boy Niang ak Balla Gaye kon nekkul woon jooy non gëmewuma victoire bi non xam nga mbër dafa am fu muy toll amul ku munta daan te lamb la keroog bi Gris Bordeaux di daan Antoine Bakhoum carnaval LG stade Iba Mar Diop bu mag bi bu amateur yi cent quatre-vingt-dix yëpp gëmuñ ko ndax état bi foofu fi Antoine Bakhoum toll. làmb bis bu yàlla sàkk nit daan koo xam dañ naan i te ku la ne maa xam ne ko ba dimanche. gis nañ bi mu mu daanee Boy Niang da nga doon tàccu. dama ko dama koo dalal xaw a ree xam nga est-ce que du nit lu ñu naan nit fekk dafa jooy. non non jooyu ma jaaxlewu ma jooyu ma ndax xam nga lu tax. ñun ay jullit lañ te tey suñ indi woon biteel biteel ba di leer xat ñu ne ca ca ca asamaan sa la jóge hmm. boo ko sotti ko daan dama na laa ah, mbër kii dee wax ji dégg naa ko de mais gëmal ne fii benn buur doo nga fi te mooy yàlla hmm. lam ca dogal nag nëbb na ko ñëpp ndax saisam bi da cee fiir loo xejji xejji xejji mu lax la yëf mën na laa may ndam mën na laa bañ a may ndam sportivité boobu nag laa duggee ci làmb ja hmm. moo tax biñ ko daanee mu gestu ne ma lan la mën a ko lu yàlla miy dogal moo la xañ solo sa yére ñu ñibbi. kon lan moo tax keroog nga dagg sa yite fekk Fadam ci plateau am mu def émission nga nga nga nga ko. waaw xam nga dama jàpp ne. woote téléphone doy la nga ñëw. waaw xam nga man xam nga man dama jàpp ne. Hmm. làmb ñun ñoo ko bokk. te lépp lu ci Xaadim Anta Seck wax luy yàq rek ñun ñëpp la yàqal. Hmm. donc su fekkee dafa am loo xam ne kenn da koo wax. te yow nga xam ne kii li muy wax bokkut ak ni mu demee wala boog ni mu ko waxee bokkut ak li mu bëgg a wax jaadu na nga ñëw toog ci télé bi du werante leeral la ndax ay nit du ñu engagé wu ci mbër yëkkati ay millions def ci ñii am seen ak jot ñëw indi ñii am seen ab xam-xam ñëw indi ñii am seen leneen ñëw indi neuf mois. Mhm. ñu daan ko nga ne nangama ko daan. dañ ko infiltrer dañ ko infiltrer. loolu amul. le mot infiltrer pour man ci tubaab. mooy meeke léegi Xaadim Anta Seck ak góor ak moor ñooy ànd mm-hmm. mais ci seen ànd bi mm-hmm. am naa ci koo xam ne lu fa xew moom a koy wax mm-hmm. léegi loolu soo ko déggee mooy booy ñaar ñi ko jege am na ci ab ab ab kuy nettali am na ci kuy senn am na ci kuy yóbbi wax te loolu jaaduwul loolu la metti woon loolu li tax mu metti ma mooy damaa xam ñi ko jege liñ daj damaa xam ñi ko jege fi ñu jaar ba egsi fi ñu egsi damaa xam ñi ko jege dama ne booy ñaar ba mu commencé bëree combat bu ndaw ba fii muy bëreeg mudloo amul kenn ci staff bi koo man ne kii lañ jëlee yokk ko Xadaafi Dégol Junior Tafa Kandji Abdou Koulé ba nëgëni maintenant wàññi ku kay ci am te maintenant Cheikh Fall boo ñaan ñu ko wër nii tiiko nii matuñ dix person ñoo ko mas di wër matuñ dix personnes. ñoo xam ne ñoo naan def leen ñu def bàyyi leen ñu def léegi ñooñu suñu àndee ci seen biir xamante xamanteeg mbër mi nga am loo wax dañ ne saay saay waxu dëgg mais yàq nam xel. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy dañ ne staff bee ko daan ndax guddee gi mais xam nga làmb nit ñëw na fi 19h30. Ah. ñu daan la. Mm-hmm. Gris Bordeaux 9h30 la ñëw ci moog Balla Gaye te kenn mm-hmm. yëkkatiwul loxoom. Mm-hmm. donc yooyu li ma ci doon attirer attention rek mooy ñun ñëpp ñu maytu ko. waaw ah, guddee gi nag parfois man man personnellement man su fekkee wax naa ko fi ma koy teg mooy échauffement yi mu war a def. si loolu am na lu mu ko mën a yàqal. gis nga échec. Mm. xam nga lan mooy échec. Mm. mbir ñëw ba jàll. te tiré woo ca benn enseignement. boobaa nit ki dafa échec. mais nit ki bu fekkee li nga def dafa jeex ñi war a toog toog ñi war a waxtaan waxtaan kenn ku ci nekk xam ne erreur bii kat maa ko def loo mbër mi te erreur la. Mm-hmm. nga jël say responsabilité ndax critique day defar mbër mais su dee mu positif. Mm-hmm. mais su fekkoon dafa am noo xamante ni moom la mbir mi di demee. Mm-hmm. mais jarul ma jógee parcelle gii dem mais su Lamine defee émission ba pare. yow ak Momo dong nga ñëw. ma jékki ne non Lamine ma def si woon émission Kër Kànji la fa ne moo ko fa jëlee. Mm-hmm. mais di nga ñëw indaale Momo. Mm-hmm. ne ma maag Momo mais fa nekkoon te ñu ngi nii ñu jël wax leen ko. Ah. léegi nag du question Kànji. Mm-hmm. dafa am ñeneen ñoo xam ne dañoo ne ci ginnaaw Boy Niang te seen kàddu jotuwut foofa. te ñi am naqaru xol ci wax ji. ñooñu laay leeral la. ok ñooñu laay weddil. ndax Boy Niang kenn infiltré wu ko. Boy Niang kenn infiltré wu ko Boy Niang xam nga lu ko daan. ñëpp àndandoo ki mbokkam ñëw def suñ borom ne ko tey kenn du yëkkat sa loxo. kenn du yëkkat sa loxo la ñuy yëkkat sa loxo. moog si ah, loolu nag xam naa dama koy dama koy bàyyi ak xam nga kenn ku ci nekk dafa am loo moom ci sa bopp. kenn ku ci nekk am lu nit ñi moom ci yow muy Boy Niang ba muy xamanteeg Siteu ak ñoom ñu koy amalante man fekkewu ma. kon duñ bëre. déet déet ñoom ñaar lan wax. déet xaaral baal ba ma wax. dama ne. <laughs> ñoom ñaar la ñuy amalante. bul yàq combat bi bërki démb dama ko ne. waaw man munu ma laa may cent millions. Mm-hmm. kon du ma la ko xaj. dafa am loo xamante ne bii su ko ay nit séqee mais du balees ak mbéykay ku ne dégg na seen diggante ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais loolu lépp dafay doon loo xamante ne bii lépp luñ ciy def muy bëre muy bañ a bëre mu bañ a doon lu yàq dara kese mais booy ñaa ku ko làmb booleel mën naa bëreeg yow. revanche Sa Thiès Boy Niang. xanaa déggoo li ma la wax Boy Niang tollut fu muy moytoo kenn. revanche mais lamb dafa am plan de carrière. am na maye am na joxe no Boy Niang kay instant bi moom Gris Bordeaux rek dafa am comme combat jànq. déggoo li ma la ah. muy kenn amut Samba amut Demba ndax Boy Niang carrière yi gën a métti ci lamb ci la bokk bi muy jël brise de mer ñëpp dañ ko fee dig. Mm-hmm. bi muy jël général Dolph ñëpp dañ ko fee dig. Mm-hmm. bi muy jël Sakajor ñëpp dañ nañu fecc doo ngeen ci am. Mm-hmm. bi muy jël les deux bi mu jël les deux nag. Mm. bokk na ci xale yi les bokk na ci xale yi gën a tëj ci làmb. bokk na mën naa ne la saaka joor ak les deux jël bi leen booy ñaa daan bokk na ci yàq seen làmb. Mm-hmm. bi muy jël garga mboose waxi nopp. Mm-hmm. bi muy jël Sa booba su ko neexoon mën naa dévier Sa bi muy jël ñaari doobaale yi gën a tëj ci làmb na xam nga garabu doobaale. Mm. Xaadim Anta Seck ak war na ko xam. ñaari ñi muy jël muy Tapha ak Lac de Guiers bu ko neexoon mën na leen a teggi. ay ah, boobu amu leen ci leen mais dama ne ñu neexoon mën nañ koo teggi comme niñ koy defee fi nekk ni te dañoo jël bëri ak ñoom li ci am ñu xam ne lii la suñu borom war a def. revanche yooyu bëgg nga ko seen diggante ak Tapha Sa Thiès. xam nga man booy Niang qualité yi ma xam ci moom bañaluma ko kenn waaye est-ce que làmb war naa def fii mu toll mu bëri ak Khadim Anta Seck wala Kandji foofu la ñuy xool mais bu fekkee bëri nii rek pour ay compétence ak yooyu amul menn mbër mu ma koy dawale wala mu ma koy maytule. kontaan naa ci yow Kandji lan ngay waaye li ñuy tàggoo rek mooy sant yàlla bu baax jullit sangu-sang yi Seydina Mohamed mi may ñu commencé bisimilahi rahmaani rahim jeexal ak alhamdulilahi rabil alamin di wax ne émission bi kontaan nañ trop ndax neex na lépp luñ ci wax nag ci njuum mat rek doomu aadama la di ci jub rek ndimbalu suñu borom la di ñaanal suñu yaay ji def intervention yàlla na yàlla yàggal ko ci kanam suñu kanam ajarut ami saaxo mm-hmm. Abdou Kanji suñu mag Tafa ñoom ñëpp suñu borom bàyyi leen fi ak seex yi di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fa yàlla def jàmm élection yi ñu dëgmal mhm. ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin te ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom mhm. gaal gi ñun ñoo ci yéeg ci kenn du ne wàccal ma yéeg fee mhm. ndax amuñ feneen fu ñu jëm yàlla na ci yàlla def jàmm suñ làmb ji itam yàlla def ci jàmm làmb ji gën a avancé promoteurs yi koy tëgg gën ci gis seen bopp yàlla defal ñu ci jàmm le 14 janvier réussite totale di la sant nag ak di la gërëm di gërëm bës yow maa ngi yow danoo yàgg xam nga dafa am loo xamante ne bii Lamine ku xamul rek xamoo. su ma génne woon suñ ay message messenger. loolu yaakaar naa ne kenn xamul man at la woon. dëkk fi tey yow ñu di ci waxtaan. waaw léeg nga jékki-jékki ne ma diw ak diw combat la. ñu àndandoo ba tey suñ borom def moo tax gis nga xamee bu ci ne. suñ def ko da koy rafetal. ndax ëllëg kenn xamul ëllëg yi lu doon. tey jamono bi ñuy waxtaan kuñ ñëwoon lii dina am bis. nga weddi ko comme nag ñun moomuñ suba. dañ ko bàyyi ak borom suba te rafetal suñ kéem kàttan mm-hmm. ñun ñëpp ay acteur lañ ñu wàcce ñu pour ñu jouer film mm-hmm. kenn ku ci nekk nag am nga droit ne rôle bu rafet bii man laay féetewoo mm-hmm. nañ féetewoo ci role bu wax lu baax def lu baax te xam ne bis bis dina ñëw ñii def lu bon ñii def lu baax duñ ñee ñii def lu bon ilaa yoom yu baasoo la te boo yàggee ci àddina am ci vécu da ngay gis ne musumaa dégg kuy def lu bon bañ ne moo ci am ndam nii musumaa dégg ku koy wax kon bu kenn dugal yow nag wax naa la ko léegi bi caméra yi fayee naa la ko wax bi mu tàkkee am nga sas soo dee gone ñëw bu yàggutoo njaay ci làmb suñ borom dogal nga am ci benn aura waaye benn crédibilité bi c'est très important ba koo bëgg jub du am benn arrière pensée koy waxal du am len lu muy xalaat te lépp loo wax dinañ ko teg ci éthique ak déontologique ça veut dire nit Lamine li muy wax xool na ci akulaay taalaam kanji du la woo ne la Lamine waxal ma ci Mor Mbaye lu ñaaw mm-hmm. nga wax ko mm-hmm. kaañu du la woo ne la Lamine lii laa bëgg a def defal ma ko ci mbir soxlul ma diw soxlul ma nangam loolu su fekkee dem nga ba nit ñi étiqueté la ko da ngay góorgóorlu bu baax te xamante n'a pas droit à l'erreur mm-hmm. te Pape Diouf damaa dégg mooy way wu am solo juddu beeg jikko jeeg job ji ngor gi mooy li lay wallu waaye bu ko ragal yàlla jiitalee doo a def lu ñaaw macha allah bu néewee jeex su bëree jeex xam nga lu jeex rafetal gi am na ci ñoo xamante ni bii fii may wax ak yow nii seeni bàmmeel dañuy joxe dépasse am na ci ñoo xamante ni saa sa xel demee ci ñoom nga xam ne nit ku baax dem na loolu nag dara mayoo ko lu jëf ju baax buñ ci kenn génnee suñ ko waxantee ñooy daje ci dëj yi muy lu ñaaw suñ ko jëflantee mooy ñooy daje ci ngénte yi muy lu rafet te ku ci dajeeg sa morom sëgg te Lamine war ngaa rus ñu dajale laa kànje naan la noo Lamine li nga def du yoon baalu ko xaraj as góor da koy maytu gis nga bu njëkk dama daan ñëw ne pap Seck mais moo sàcc xaalisu Mor mbaay samaam bu la ca suba ga da gis mu def dam newi newi te ne la ca jamonoy maam ba fi may wax ak yow Pape Seck mi musu xam ci askanam kuy jël nga ne teg baay waat wax ja fa ko jëlee woon loolu daan nañ ci dimbal yaxante daawut am te Lamine bañ gëjee ragalante ginnaaw la ginnaaw gëj a set muy kenn ku ci nekk ci ñun soo wanee ginnaaw la nit ñay wax ci yow say waaye cay ànd waaye bu dee boo ne der ma ne defal ndànk nga ne teel may la góoram mi ngay wax nag ma wax la ci leen booy buy naaw may naaw maa ngi mooma bokk lépp mm-hmm. di nga noppi wallaay mais da ngay ànd ak si ñu koy pentiir mm-hmm. yow waa ji laso bu ndaw lay yor yow nga dem rulo jël rulo bi jox ko ne ko na gën a tooy loolu nañ ko moytu mm-hmm. te defarante te xam ne fii kenn mënu fay xas kenn même bu dee yax bu rëy moom dañ koy toj dong nag yii ngay séen mm. ak xar yi nag yax wu ñu wan a yor mm. dañuy daaj dugal ci cin li jikko ju rafet nag mhm. moo gën lépp ab juddu bu rafet mhm. jikko ju rafet a ko gën mhm. nit dee su ko gënee ci sant jikko ju rafet la ñuy toggee nit dëgg yàlla kat dafa yabal yonent bi muy suñu roy royukaay te ba mu demee ba tagg jot bam mu ne ko wa ine kalaalaa néew ko bànni xurees wallaay xulaxil sim la ko wax kon nag lu waay lamboo lu jikko loola perte nga yàlla suñu borom dimbale ñu bokk ca jikko ya nga xamante ne njot nañ ne tane na ndax nit matut yàlla yàlla defal la jàmm te boole nañ la ci suñ bopp démb tey soog a ñëw te it nag saa yuñ gisee nga ne ci duud yoon deñ la ko wax mhm. buñ gisee nga ne ci yoon deñ la ko encouragé kon yàlla na la yàlla defal jàmm maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf kontaan naa ci yow bu baax a baax di kontaan ci moomu ah rakku ceeg maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit sa xarit yi sa doomu ndey comme ni nga ko waxee nit ñi nangu jàpp ànd wallaay waaye nag gumba tax lu wallaay loolu rek mooy mooy mooy wallaay wallaay dëgg ndax léeg ñu dégg loo xam ne waaw góorandooy mais Mor mbaay mii Ama Diak ak Xaadim Anta sekk mii lu ne la ñuy dégg ci kañ. lu ne da ngeen a ñàkk fayda da ngeen def lii waaye gis nga ndox saa yoo fekkuut ba muy taa. waaw bu ñuy xuus bul jiitu. bu ñuy xuus bul jiitu kontaan nañ ci moom bu baax a baax di kontaan tamit ci Diop xaas cuus moo ma jox daal di moom. waaw ah, tey moom da nga sañse. waaw moo ma jox bi nga ña blanc bi nga def ci suuf. waaw bleu de bi nga def ci diggante bi. ah non non li nga def ragal du ko def. waaw Wélma boutique promo bi nag léegi mu jeex di 17 lay jeex. mu ngi mu <laughs> ngi kañ foofu nga dem fa yóbbu waaw waaw ñu sol costume. non non. dem fa balaa bi di xam nga mardi war nañ am benn présentation benn combat. waaw allah bu lëndee. waaw xaadimante sekk dina jël amaja. waaw góor a góor ndooy. yóbbu leen ca welma. waaw moor moom tiisi lañ koy dagal mu def ñetti pièces. jeex na tàkk. Sénégal ka fay kan local la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp. ñu consommer ko.